foog mu leer dañoo ànd ak ñun ñii lu mat daanaka ay at yu bari di ànd di xeex kooku boo ko xamul kenn du lu xam beneen bi ci topp xeex xeex yu bari yu légitime dañ koo ànd ak ñun muy le président Diomaye Faye muy le premier ministre Ousmane Sonko kon ñun lu ñuy wax dañ koy wax en connaissance de cause parce que koo doon àndal di xeex tey danga da ngay sant yàlla mu nekk jiite nguur gi mais aussi da ngay fàttali na nga xamante ni nguur gi fi jóge la leen daloon ngir ñoom ñu bañ leen a dal parce que nguur gi fi toog mënuñu leen souhaiter lu dul réussir parce que bu ñu réussir sénégalais yi ñooy am jàmm. amul sens tey tey ku jóg wax ak état bi ñu teg la ennemi wala yaakaar ne yow nga jóg pour xeex état. Mm-hmm. non non c'est pas le cas. Mm-hmm. li Macky Sall amul woon Abdoulaye Wade amu ko Ousmane Sonko ak président Diomaye mënuñu koo ñàkk bañ a am. il faut nit ñi di wax seen xalaat et di wax dëgg. Mm-hmm. li ñu gis lu dul yoon il faut ñu di ko wax rawatina ñun ñi nga xamante ne ñun kenn gënu très bien placé ñeneen ñi sax mën wax yaakaar ne fee nekkoon wala fii mais dama ne man. Ousmane Sonko le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ñi ëpp ci gouvernement bi ñoo daan ànd ay at di xeexal askanu Sénégal kon ñun li ñuy wax dafa am fu ñu ko teg mu leer kenn du ko dindi. parce que dafa am fu ñu jaar. leneen li may wax moo frère mooy appel la candidature bi il faut nit bo li may waxaat ci politiciens yi il faut ñu bàyyi ko xel ni ma koy waxee chaque jour il faut ñu bàyyi di jël askan otage ci wax boo xamante ni yow leer na leen boo toogee doo ko def tey avant nga toog wax nga loo xamante ni boo demee ba toog jot nguur gis nga ni kat la nga doon wax ak lii amul réalité. Mhm. et loolu dafa bari lu ñuy dal ci nguur yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk du nguur gi rek mais nguur yu bari bu ñuy ut dañuy wax yu baax yi dañuy wax yu bon yi rek dina bu yu baax di wax yu bon yi rek dina bu yu baax di wax yu bon yi rek dina bu yu baax yi une fois ñu jot ci pouvoir à un moment donné lañ doon wax daleen di rattraper ba dootuñu amati lu ñu waxate askan mhm. askan bii fal tey nguur gii mhm. à pour cent li taxoon mu fal mooy dundin bu métti. Mhm. li tax ma koy wax man damaa bokkoon ci ñu toog palais président de la république di waxtaanee dund gu cher gi. dund gu cher googu bokk na ci li tax ñun ñu juddu dund ko cher googu bokk na ci li tax nguur gi fi jóge xeex boo xalaat ñu xeex ko ak ñoom parce que askan bu amul lu mu dundee coono dafay gaaw ci moom moo tax nguur gi nag bu ñëwee diggoon sénégalais yi ci wàllum det ci lay ñëw avant maa ñëw ci dund bi. Mhm. wax ni ñun ku ne xam na ni ñi nekk ci nguur gi fiscalité lañ jàng boo ñu waxee ci wàllu boo bu dee yow fiscalité nga jàng ba pare wax ñu lu jëm ci wàllu impo wax ñu ci lu ci wàllu dette mais dañ koy gëm mi ngi mel ni le journaliste bi nga xamante ni moom dafa toog wax ma ci wàllu journaliste mënu ma def lu dul gëm ko parce que moom la jàng le le président Bassirou Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko wàllum koom-koom ak wàllu fiscalité impôt la ñu jàng lan ca waxoon mooy lii Sénégal di lebee. du nii lépp bi dafa ëpp wax ci seeni xalaat te ñun bu ñu yegsee dinañu def nii ak nii ak nii mais ba ñu yegsee li ñu gis mooy dañoo dem lebi pour ñëw fay donc loolu ça laisse perplexe quand même que yi wax leen ni ñun kat ah lañ leen falee woon kat dañoo yaakaaroon ni bool bi tegu suñu ndodd nga xamante ni dañoo bëgg mu wàññeeku bu ñu gisee ñuy wutiwaat bor kon lañ ñu waxoon wuti nag li am tey léegi lan ngeen ñu expliquer mm-hmm. loolu nag mooy indiwaat ñaar. ba may ut dama topp topp ma sama xel ak sama xalaat ba may ut xol rek laa topp ak wax li nga xamante ni moo mën a yàqal ki fi jóge et loolu moo fi war a jóge fii ak kii ut mi ngi def feu et flamme pour yàqal ki fi nekk pour wax ko bon pour sosal ko pour wax loo xamante ni tey askan day mën a génn ci kooku te xoolu li nga xamante ni mooy moom bu demee ba toog ne lii kat moo gën ci askan bu boobaa sa toog mën na indi jafe-jafe. mais mais ci wàllu woowu gis nañ ne rebond bi bokk na loo xamante ne empreinte la boo xamante ne ne dañu ko voté woon à l' assemblée nationale ba pare. lu ñu voté woon la à l' assemblée nationale ba pare xëy na peut être mënuñu ci dara faw ñu dem jëli. Ah, jox xam nga xam nga xam nga xam nga suma jigéen. Mhm. xam nga man côté bu may waxee sax man mhm. je pense que état mënul dund sans dette. Mhm. état. moom mënul dund sans dette mhm. waaye nag daf ci am loo xamante ni boo koy wax ak askan da nga ko war a waxee noo xamante ni askan da koy dégg mhm. mais tey bu ñu demee ba yegg si fii mhm. euh, askan amagu ci lu leer ah. euh, débat bi nii je pense que gouvernement bi war na génn def déclaration indi ci ay leeral yoo xamante ni sénégalais bu ci ne dina mën a dugg ci boppam man yaakaar naan loolu bokk na ci mën a régler problème bi parce que xam nga diggee boo gis Séné ah, ah, olof Njaay day wax bor la te diggee bu dee bor ñu dem ba yegg si ci bor war a fay gisuñu loolu man jàpp naa ni yoon la comme ni le président comme le premier ministre ni mu def ci wàllu dund gi man loolu dama koy saluer ah le fait que mu génn daan ne ah man de bi may ut nee naa bi ma faloo dinaa wàññi dund gi waaye bi ma faloo xam naa ne réalité yi bokkul mhm. ah mu wax dëgg ñun lii xaar nañ ko ci parce que gëm nañ ni amul lu ëpp solo wàllu dette te dette bi dafa doon loo xamante ni ci askanu senegal bokk na ci yor seen dund seen dem ak dikk seen ay euh, wàllum salaire loolu loo xamante ni sénégalais war na xëy na xëy na xëy na ci ci li nga xamante ne moo jëm ci déclaration de politique générale bu gouvernement bi moom premier ministre xëy na euh, bu ci demee peut-être que dinañ am euh, feuille de route boo xamante ne dinañu xam fan lay bëgg a jëmee réew mi. ci wàllu mais ba tey et bi ñu falu léegi deux mois la deux mois la deux mois la. loolu du wax xam nga liy wax mooy. liy dëgg mm-hmm. mooy. Mm-hmm. Eh, décision yi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëgg a bëgg a jël mi ngi koy jël. acte yi nga xamante ni yu bari mu teg ko ñu koy rafetlu lu demee ni que lu jëm ci wàllu justice bi ñun nekkuñu fa woon mais dañ koy rafetlu parce que mbir la moo xamante ni ñun munuñu ko ñàkk bañ a rafetlu mais di rappeler ni rek que ñun dañ ko dañoo waxoon ak ñun que bis bu ñu faloo wàllu quatre-vingts xale yi dee woon dinañ ko leeral mënuñoo defar justice te loolu waxuñu ci. il faut que am responsable boo xamante ni moom moom responsabilité boo xamante ni moo rey quatre-vingts xale yi parce que ñoom ñi fi toog toog tey doon pouvoir ñoom ñoom ñoo daan woote xale yi di génn pouvoir bi fi jógee moo daan répressionné ñan ñoo rey ci diggante boobu quatre-vingts sénégalais ñoom ñoo dee benn sénégalais bu dee dañ ko war a leeral tey mënoo réforme justice te waxoo ci loolu leeral loolu. kon ëllëg tey mille sénégalais dina dee te du mujj fenn. loolu mooy dëgg beneen bi ci topp mooy aussi le président Bassirou Diomaye ak le du ma indi le premier ministre parce que euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye acte yu bari yoo xamante ni dañ koy jël dañ koy solliciter di ko rafetlu mais acte boo xamante ni jël na ko te ñu jàpp ni dañoo dañoo ni ñu ko jëlee baaxul il faut que dinañ alerter il faut wax. parce que loolu moom mooy doon intérêt Sénégal. loolu moom mooy doon njëriñu Sénégal. très bien moo tax eurobond yi. ñun jàpp nañ ni ñoom comme wàllu koom-koom lañ jàng comme wàllu fiscalité lañ jàng comme wàllu. wàllu woowu lañ jàng te avant ñoo toogoon dañ ci waxoon lu leer dem nañ ba toog ñun gisuñu lool li ñu bëgg rek mooy leeral ni ñu ko mën a leeralee. askan wi amuñu problème dañuy comprendre parce que nit nit dina bëgg mbir dem ba bëgg ko def am lu ko contrainte bu ko waxee nit ñi ay ay nit lañ parce que duñ ay dof li may tëgee rek mooy di rappeler waat Sénégalais yi les politiques. képp ku ciy ut del utee sa xel te bañ a utee sa xol. parce que loo fi wax dina la rattraper. Euh, très bien Ibrahima balaa may ñëw ci yow ñu daal wax ak euh, sunu gan euh, par rapport ak li nga xamante ne moom moo di ci wàllu koom gis nañ ni Sénégal dañoo dem lebi wat pour ñëw fay ba par rapport ak koppar gu toll ci quatre cent cinquante milliards yéen ñi nga xamante ne yéen bokk ci gëm sa bopp nan ngeen ko jàngatee. waaw bon ginnaaw loolu man ñun niñ ko jàngate mooy. Mhm. dama gis ni. Euh, gouvernement bi fi nekk nii euh, dañu parewul quoi parce que je ne peux pas euh, d'accord nga ni pendant cinq ou six ans yaa ngi liggéey ci benn projet muy Pastef sama mbokk Pastefien yi nga tëgg benn livre muy solution ma jàpp ni solution boobu boo ko tëggee yow bu ñu la joxee réew mi rek tak situation yi danga ko war a décanter parce que dégg nañ fi président Ousmane Sonko ñoom ñu doon wax nii ñoom du ñu dem ay FMI soxla ñu leb banque lépp loo xam ne soxla nañ ko rek mën nañ ko am fii ci biir réew mi ñu gis ni bi ñu faloo loolu lépp li olof di wax France daalu xëddeem ñu jël li nga xam ne nguur gi fi nekkoon muy seen